xam nañu dëkk bi yéeg nañu li fi xew fii ci Touba taw yi fi jàll euh, yàqu-yàqu yi mu fi andi euh, am na sa ay nit yu fi ñàkk seen euh, seen bakken njaboot yu bëri génn seen kër ndox mi jël na seen kër gis nañu sëñ Muntaxa xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér taxawaay bi mu ci am ba mbir mi xewee comité bi ñu ngi jokkoo ak ñoom depuis ba sëñ bi defee appel bi mun nañu wax sax euh, yëngu-yëngu yu njëkk yi ñu ci njëkk a def mooy mettre en place benn numéro vert numéro vert mooy numéro boo xam ne askan bi mun nañ ci woote du ñu fay dara jokkook waa communauté bi bu ñu amee problème euh, sas leen ko bu ñu amee information ñu wut tamit comité bi mun na leen ko jox. mettre nañu en place tamit benn numéro Orange Money boo xam ne euh, day permettre askanu Sénégal bi yëpp ak ñi ci bitim réew tamit ñu bëgg a jàppale comité bi ci liggéey bi ndimbal bi nag ci wàllum dund la. wàllum dund loolu lañu ko comité wax moom la ñu gën soxla fu mu toll nii moo tax ñu mobiliser euh, xaalis mun nañu wax takku na takkuwul li ci ëpp solo mooy mu amul njëriñ askan bi donc nekk na ci wàllu euh, dund ay euh, cent cent tonnes téeméeru tonne ceeb boole nañ ci tamit ay tonne wu dëwlin ak ay tonne ndox tamit boole nañ ci yeneen jumtuwaay yoo xam ne ñi nga xam ne ñàkk nañu seen kër fu mu toll nii dinañ ko soxla. Euh, loolu lañ ñëwoon tey nag euh, jébbal si ko comité bi. dund bi buñ ko xaymaa euh, mot na cinquante millions Orange Money tamit li muy waajal nii déjà dina dugal ci pàcc bu njëkk bi quinze millions ñu ngi ñaan tamit jafe-jafe yi nekk suñu ginnaaw rapide.